nga xam ni nguur gi moo nekk seen gannaaw foogoon ni loolu mun na impacter ci Ziguinchor ba waa Ziguinchor ne ah kii de est-ce que nañ koo woteel waaye bi résultat yi ñëwee gis ngeen ko mbir mi continuer noonu ñu continuer di réclamer mbir mi bi ñu nee dañu war a rencontrer samay conseil ne ma ah xale yi dañu ñu ngi Ziguinchor ne nañ dañu bëgg ñu rencontrer may leen ah vous pouvez les recevoir bi ñu demee conseil dañu leen ne tooñ ngeen yéen a ngi tooñ te xam ngeen ni maire du ko ñuy xoqatal du ko ñuy wañ loxoom bañul continuer mbir mi mais il faut ngeen présenter seen excuse ba pare waxu 5 millions yi ngeen teg ko fële li wane ni bañuñu ñu continuer affaire bi mooy la bi ñu toogee léegi lu ñu waroon fay ci luwaay bi yëpp fay nañ ko tey bailleur bi du leen ne ameel nañ ko xaalis wala arriéré kon deltu leen gannaaw. ngeen jéggalu te ngeen bàyyi waxu 5 millions yi parce que maire du ko mus sa fay ñu ne d'accord ñu ngi dem bind lettre excuse ñu dem bind benn lettre boo xam ne menacé ci lu ne ñu wax ko ci ne su ngeen ñu joxul nag di ngeen xam ni ñun am na lu ñu mën ñu ne d'accord dox leen loolu mooy principal problème bi manipulation politique bi ci nekk nag li koy firndeel. ñaar ba ñett la bi ci njëkk mooy gis nga étudiants yi fa nekk yëpp matuñu juróom fukk matuñu cinquante waaye état bi moo leen di encadré démb bi ñu demee ne dañuy génne lycée ba ñu ngi fekk benn camion policier ci buntu lycée ba fekk policier yi toog ci seen kaw camion bougé wuñu fa ñoo leen bàyyi ñu dem ne dañuy génne waa lycée bi jógee foofu doxaat trois kilomètres ci beneen école bu nekk euh, euh, suku papaay génne waa xale yooyu nekk foofu ne dañuy dem def concert de casserole de ci buntu mairie ba romb préfecture romb fépp moo ne gannaaw barki démb préfet dafa woo euh, Basirou Koli nga xam ne kenn sama conseil la ne xale yi wax naa leen bu ñu génnee ñoom ñëpp ma defeere leen parce que du ñu nangu trouble à l'ordre public waaye ñëw nañ ma gis nee nañu dañoo bëgg médiation préfet moomu démb mi ngi woon Ziguinchor ñaata nit ñoo génne dañuy manifester foofu ñu doon leen baru fetal li ci mujje mooy Abdallah jaata mi ñu rey bi ñoo na ci mois de juin bi passé ak euh, nu mu tudd Goudiaby Idrissa Goudiaby mi nga xam ne moom it biir Ziguinchor lañ ko dóoree bal ci ay manifestation naka la lu mat juróom fukki nit ñëw Ziguinchor mën a ñetti tegle ñetti fan ñeenti fan di doxantu biir Ziguinchor naan dañuy taal ay pneu dañuy génn ay nit police a ngi fi gendarmerie ngi fi préfet ngi toog bureau ñu leen di seetaan ñu def ñoom sax ñoo leen di encadré te li gën a garaaw mooy ñun yëg nañ ni jël nañu ay nit infiltré leen ay militants ak ay nervi ay milices yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ci kan la ñu bokk Ziguinchor rek ngay gis homme politique bu ñëw jël téléphone am di woo commandant di ko jox ay ordre homme politique pouvoir bi Ziguinchor rek ngay gis homme politique andi ay milices ñu yor ay grenades lacrymogènes ay milices saa wax de privé ñu yor ay grenades lacrymogènes di ko dóor nit ñi Ziguinchor rek la am am na ñu ñu ci dugal. ñooñu ñoo fomenté seen coup ba jiital xale yi ñu naan dañuy dem lakk kër yaayu Ousmane Sonko Sénégal yëpp dégg nañu nee nañ dañuy dem taal sama kër yaay dañuy dem taal sama kër man te doo dégg préfet yëngu gouverneur du wax commissaire de police du wax commandant de brigade du wax ñoom daal sax ñoo leen di encadrer ñu dem def li ñuy def demaat toog jàpp seen ñàmbur li ki Sall di waajal ci Ziguinchor 2019 ba léegi mi ngi ci bu ngeen gisee man su may dem Ziguinchor ci laay gën a yokk sama sécurité parce que projet attentat yeeg projet def lu bon Ousmane Sonko yëpp physiquement ñoo ngi ko ñoo ngi koy dëxëñ Ziguinchor bu ko defee ñu ne ci ay mbokkam la ñoom ak ñoom la lii moo ragal woon Sénégalais yu bëri ba tax li ñuy wax élection locale ñu bëri dañ maa ñaanoon ne ma bul bul dugg ci affaire mairie nañu préparer 2024 waaye ku bëgg sa réew da ngay bëgg sa dëkk munoo bëgg Sénégal te yow fa nga soxe ko doo ko bëgg ma jàpp ni nag dafa am mission bu ñu waroon dox Ziguinchor te loolu waa Ziguinchor yëpp a ngi koy gis bis bu ne ngeen gis reportage yi Ziguinchor ci diir bu gàtt liggéey nañ fa loo xam ne àdduna yëpp gis na ko te commencé guñu sax liggéey bi ñuy liggéey Ziguinchor lan mooy nag seen objectif ñoom moo tax ma ne Sénégal yëpp laay waxal rawatina ndaw ñi ñoom xam nañ ni ndaw ñi seen xol téeméeri ndaw yoo jël juróom-ñett fukk yi boo ubbi woon seen xol léegi Ousmane Sonko ko fay fekk ñu ne il faut ñu fexe ba créer problème entre Ousmane ak ndaw ñi ba ndaw ñi commencé ne ah kii daal moom affaire am leerul kii de mi ngi métital ay ndaw comme ñun rawatina nag yéen étudiants yi may waxal. waaye xam naa kenn mënu leen manipuler yow étudiant bi nekk Assane Seck Ziguinchor saa yoo buggee manifester buntu université sax duñ la bàyyi nga génn fa dinañ la dóor lacrymogène jàpp ñu bari jee ci yéen dem tëji yow étudiant bi nekk université Dakar wala université euh, euh, Saint-Louis wala feneen boo génnee di ñaxtu parce que fay ñu la sa bourse te muy loo xam ne obligation la sa droit la wala ngay génn ñaxtu parce que njàng mi doy na waar wala leneen leneen ñu duma la tëj la kaso kii nga xam ne dañ ko doon dimbale kese du obligation gis nga tey ti niñ ko yombalee ba mu ne mi ngi dem manifester ngeen war a xam ni politique la amul benn rapport ci cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci yéen kuy ndaw ci réew mi ngay étudiant ngay marchand ambulant ngay transporteur ngay euh, euh, euh, ouvrier ak bu mu munti doon ak loo mun munti doon sportif yow xam nga ban yéene la ñu am ci yow xam nga ni li ñuy sonn ak li tax ñuy daj li ñuy daj ndaw ñi yéen ñi yéen a tax waaye ñun du suñu bopp kon man xam naa ni kenn mënu ma leen féewaleen ak yéen li tax ñu bugg leen jaxaseeg ñun nag mooy li ñuy dëgmal parce que ñëpp xam nañ ni réew mi fi ko Macky sal bëgg a jëme kenn du ko nangu ñu ne nag comme ndaw ñi bu xeex jotee ñooy jóg xeex bu bañ jotee ñooy jóg bañ nañu fexe ba yàq seen diggante ak Ousmane Sonko loolu mooy manœuvre bi ñuy def nii moo wax leen ni lii amul benn rapport ak ndaw ñi te bëri na ñoo xam ne ñu ngi may woo naan ma bul def bras de fer ak ñoom ñéeg ñéeg nii gis nga Sénégal bax ba bokk na ci li ko yàq mooy masaha bu ëpp ñun dañoo diglanteeg yéen ni dañoo ñëw pour soppi réew mi soppi réew mi nag mooy su la yàlla jiitale na nga naxante na nga oyof na waxtaan nanga nga ñeewantal waaye bu décision jotee ci loo xam ne leer na ne lii luy defar la na am poigne bi nga war a am nga jël décision moo tax lii mënuñu cee topp ñii li ñu bëgg a def yéen ndaw yi ñu bëgg a boole ñun jaarale ko ci groupuscule ndaw yéen yéen a war répondre ci lii mooy cofeel gi dox suñu diggante ak yaakaar gi dox suñu diggante ndax projet Sénégal xam ngeen ni yaatu na suñu alal réew gi ñuy sàcc suñu démocratie gi dellu gannaaw suñu ressources naturelles yi ñu jaay suñu liberté yi ñi nga xam ne ñu ngi koy salfaañe loolu moo ñu booleeg yéen te xam ngeen ni bis bu réew mi tegoo suñu loxo réew mi dina defaru ci nii wala ci nële lii lii nag bokk na ci liy mandargal liy defar réew mi mooy suñuy ànd nañu ànd ci dëgg ñu bàyyi tappale bi bàyyi caaxaan bi niñ ci ni ngeen ci mën a répondre nag mooy ma profité ci dellu si waat ci manifestation ëllëg bi dama bëgg ndawu Sénégal gi yëpp def mobilisation exceptionnel pour wane ni entre man Ousmane Sonko ak ndaw ñi entre Yewwi Askan Wi ak ndaw ñi relation d'affection la relation d'amour la waaye surtout relation d'espoir la mais c'est une relation construite autour d'un projet c' est pas construit autour d'un homme li tax nag ma ne du ma séddee moo tax mooy boo ko nangoo ci lii xamal ni yeneen ak yeneen a ngi ñëw yoo xam ne li muy yàq dafay gën a bëri parce que pratique yi dafa yàgg pratique chantage pratique gu homme politique bu jël ay ndaw dajale leen di leen def loo may wax nag waa Ziguinchor jeunes yi nekk Ziguinchor jeunes yi nekk ci lycée bi bu leen kenn manipuler. ça c'est pas votre combat jeunes yi nekk ci collège bu leen kenn manipuler ça c'est pas votre combat yéen xam ngeen yéen a gi ma am ci yéen xam ngeen li ñuy liggéey Ziguinchor ma yaatal ko ci waa Ziguinchor yëpp man balaa may nekk candidat Ziguinchor dama ñëw Ziguinchor def référendum ne leen dama am samay condition man rek maa ko def man ne dama am samay condition pour nekk candidat lii ak lii ak lii mitin boobu ñu defoon place ba Mbeya ñëpp jógandoo ne d'accord nañu say conditions ma am lu ma diglanteeg yéen am liggéey bu ma sumb Ziguinchor te laajuma leen dara man jëluma salaire u Ziguinchor neuf cent mille waroon jël jëluma ci dërëm jëluma carburant Ziguinchor maa ngi dem maa ngi dellu si samay moyens bopp laay jël di def li may def biir Ziguinchor amul kenn li ma waroon jël Ziguinchor yëpp delloo naa ko ci Ziguinchor lii ma dugal ko ci économie sociale et solidaire pour ñu jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci ay financement jeune ne coûte pas un centime à Ziguinchor man waaye yem ma ci loolu pexe bu ma am wër naa fu ne seet ay bonne volonté pour xool lu may dajale andi Ziguinchor temps la ñëw naa andi leen ñaari camion de ramassage d'ordures may ko Ziguinchor ñëw naa andi camion euh, euh, bu mag 20 mètres may ko Ziguinchor ñëw naa andi pondeuse à pavé pour ñu mën a defar suñuy pavé ñun ñem ñun suñu bopp di ko def di defar suñuy tali may ko Ziguinchor ñëw naa fekk service technique amul matériel ma ñëw jënd lu mat 10 millions ci matériel fii ñëw andi ko pour nit ñi mën a liggéey li ma dugalagum yëpp ci Ziguinchor soo ko doon ma ay dizaine de millions la te soxla woon naa ko ci sama bopp fayeeku ma jëluma carburant lu ma am jox ko waa Ziguinchor ban maire mooy def loolu fii nañ ma ci limal ñett mësumaa jënd benn billet avion boo xam ne ci xaalisu Ziguinchor kon yéen xam ngeen sama yéene ci Ziguinchor lay ni mbir mi politique la dem bi ñu defee seen daje am na ñu jëw jël parole ne Sonko daf ñoo dàq ci mairie bi loolu ban rapport la am ak immeuble bi waaw maa dàqe parce que ñëw fekk 700 employés ci mairie Ziguinchor mu am ñoo xam ne dañuy xëy su ba ngoon jot liggéey ñu am ñoo xam ne fii Ndakaaru la ñu nekk liggéey ñu dara mairie Ziguinchor weer wu ne ñu viré leen seen salaire loolu jaadu na ma wàññi ba mu tolloog li ñu soxla ci mairie bi defuma ko par soxor defuma ko parce que waaye dafa am loo xam ne Sénégal il faut mu jeex nit nu mu mun a nekkee fii ñu yóbbu ko ci siège parti jàmbur. Ziguinchor di ko fay salaire loolu jaadu na nit bu mu nekkee mbuur wala kawlax di def leneen mais militant la ñu jël ko di ko fay salaire man maa wàññi te wàññi gi jeexagul lépp loo xam ne amul rapport ak mairie Ziguinchor mairie Ziguinchor mënu cee fay ay salaire salaire yooyu ma dajale noonu moom laa réorienté ci yeneen moo tax budget bi boo ko seetee ren budget bi salaire yi ak fonctionnement bi moo doon jël 83 pour cent investissement bi di jël 17 pour cent ren jii salaire yi quarante fonctionnement bi quarante pour cent la investissement bi yóbbu naa ko ba 60 pour cent loolu mooy tax ma defar école yi mooy tax ma defar post de santé yi moo tax ma defar télé yi moo tax programme yi ngeen gis yëpp Ziguinchor. waaye suñ jëloon xaalis boobu yëpp di ko jox ay nit yoo xam ne liggéeyuñu amaluñu njëriñ Ziguinchor kon loolu dem jaxasoo ak étudiants yi xam nga ni loolu politique la amatul benn rapport ak li ñuy wax nii lii moo tax may leen du ma dellu gannaaw ci li may jëf démb jël naa huissier jox naa ko ne ko na signifier propriétaire bi ne ko à partir de 30 du 30 janvier j'arrête le contrat 30 janvier j'arrête le contrat man kenn du ma napp kenn du ma noggatu na leen état ak yóbbu encadré leen ñu dem taal Ziguinchor suñu bëggee bu dee mën nañ ko waaye 30 janvier mairie bi dootul fay contrat location immeuble étudiants yi nekk Ziguinchor bu leen locataire bi génnee ba pare ñaar ba ñett moo mun a am may dalal xelu Ziguinchor étudiant Ziguinchor yi ne leen duñ leen bàyyi waaye dootuma luwe immeuble boo xam ne dañ koy utiliser ci wàllu politique bu ñu génnee dinaa signé beneen contrat bu bees ak borom borom borom kër gi bu dee nangu na ko bu ko nangul dinaa jël beneen immeuble bu bokkul ak boobu waaye immeuble bi may jël étudiants yi dootuñu ko gérer mairie Ziguinchor moo koy gérer. dinaa fa teg un gérant boo xam ne c'est un salarié de la mairie de Ziguinchor commission sociale u mairie Ziguinchor bi moom mooy superviser nu muy doxee étudiant boo xam ne nekk nga ci jafe-jafe soo ñëwee déposer sa dossier social ñu càmbar ko ba mu leer ni méngoo nag li ñu soxla ñu dugal la ci immeuble bi waaye balaa ngay dugg di nga signer benn charte mooy immeuble bi tere nañ fa lépp loo xam ne dañ koy jëmale ci mbirum politique immeuble kenn du ko utiliser pour def des combats politiques da nga koy signer bis boo violé loolu ñu génn la ci immeuble bi mais dootuñu jël immeuble di ko jox ay étudiants yoo xam ne dañoo am fu ñu bokk bis bu maire bi changé ñu indi fi ay coo yoo xam ne jaru ko loolu duma ko nangu du Ziguinchor du Dakar du Ziguinchor du euh, du dakaar du Saint-Louis du Bambey du Thiès gi ñuy waaj a defar loolu dootuma ko nangul kenn bi ma ñëwee Ziguinchor dama wax a Ziguinchor nii man mairie bi du ma fi politique moo tax du ma recevoir audience politique à la mairie je suis le maire de tous les Ziguinchorois sans distinction nanguwuma boole liggéey ak politique politique bu jotee ku nekk xam nga noo nooy tojee sa bopp janax homme politique yi nekk ci gannaaw ñi bu ñu demoon élection deux cent fois à Ziguinchor mu duma leen deux cent fois te duma leen dumee ay cinquante et pour cent de ñoom xam nañ ko te duma ma utiliser du manipuler ay étudiants ay jeunes pour gagner leen bu liggéey jotee j'ai une fonction administrative à Ziguinchor en tant que maire seetuma ci kii wala kële personnel boobu ñu ne wàññi nañ bi ñuy wàññi man dama ne rek adjoint bi nga xam ne mooy gérer le personnel dama ko ne defal enquête ba ñu xam ñan la ñu soxla ak ñan la ñu soxlawul xaw ma ci ku bokk ban partie politique mais am na ci ñoo xam ne.